waa yoon daaru nag dañuy ñoo xamante ne bii dañuy ñoo xamante ne bii dañoo am paseef man de sant naa leen gërëm naa leen maa ngi ñaan ñëpp yàlla nañ fi yàgg te ànd ku wér waaye di sant mag ñii nga xamante ne bii ñoo toog nga xam ne ba yoonu daaru di nëgëni ba nëgëni lépp loo xamante ne gone yi sumb nañ ko lañu man ak lañu mënut ña nga yàlla xam na ne lu ñu mas a laaj fii dañuy yëkkati seen xaalis di ko joxe ñu ngi nii duñ ma bàyyi wax lu dëgg ku ci mas a joxe dama naan yéen damaa bëggoon ngeen féetewoo jàng di ñu ñaanal lii ñuy ñu di ko def ñoo ngi nii toog du lu ma yokk du lu may wàññi waaye ba léegi taxul ñu bàyyi loolu ñu ngi koy def boole kook njàng mi boole kook pësew bi heure bu ñu taxawee ñu nekk ci sunu kanam nekk ci sunu ginnaaw mooy li ko dalee fële ca këriñ sañ sañ sañ Modou Xabaan gële ba ca corniche bële bëgg nañ bala ñu fee amaat at yu néew ku fi jaarati mu nekk ay garab yu rafet yoo xamante ne bii day mucc ayib garab yi dañoo bëgg képp koo xam ne nii sa kër mi ngi fii ci kaw yoon bi ngay boroom kër nga jaayante benn barrière boo xamante ne bii bu ñu indee garab wala ñaari barrière bu ñu indee garab danga ko ca mën a dugal di ko roose ba garab googu ànd ak garab bi mbaaram sëñ fàll mii yoon wi daal di den yoon wu rafet rafet rafet rafet ak naataange. loolu nag képp koo xam ne borom kër nga te dëkk ci kaw yoon wii ñoo ngi la koy ñaan na nga ci taxaw ku ci defar sa barrière ba noppi na nga ñëw indi ko ne barrière baa ngi nii bu lépp dajee ñu woo Touba ca kanam xamal leen ne leen barrière yi ngeen ñu doon demandé mat na ñu jël garab yooyu indil ñu ko ku ci defarul nag sa barrière bu ñuy samp ba romb sa buntu kër na nga wax ne la ñu waxoon maa ko defut moo tax awma sëriñ Aliou nag dañu koy ñaanal saa borom yàggal ko fi lool ak xale yi nga xam ne ñoo jiital àndoon ak moom ci liggéey benn alaaji la ànd ak ñoom ci liggéey bu sell ñu liggéey ko ci guddi ba lépp àgg kon ñu ngi lay dalal fii fii nag bare bu suñ fallu la damay wax ne sëriñ fallu mbakk mooy alxuraan du xewe du màggat sëriñ falu du xewe du màggat bés bu ne mu gën a neex moo jumaa ji ñoom ak alxuraan ñooy suñ fallu suñ fallu foofu laa ko ak foofu laa ko classé man suñ fallu mooy ñu ñu ngi leen di nuyu ci turu mbooleem ñu ànd bi muy waa Touba mbooloo mii ñu fi gis yaakaar naa dal na xel ci ne lépp lu ngeen nisër ci at mi bu ngeen ko nosee da ngeen ko man ndax mbooloo mooy doole rawatina macha allah soxna yi nga xam ne macha allah gox bu ñu dem ñoo fa man kon jàpp nañ ne gox bi ci gox yi man lay do lay lay bokk waatu waa ci kanam nag ñoom it war nañoo sant yàlla bu baax a baax a baax yàlla booleek sëñ tubaa sëñ Touba boole leen ak sëriñ Abi fi bi bu nanguwul lu lëndam lu leer la bëgg lépp da koy leeral te yaakaar naa ne menn mbooloo moo xam ne mii dana leerale nii Touba ci kanam di leerale gisaguma ko ci ñaanal sëñ Abi mu yàgg fi lool te wér te moom it mu ñaanal ñu ci barkeb waajuram ba ñu àgg fa ñu jëm nañu ko bëggee te bañ a am benn ndog na ñëpp wér na ñëpp am na ñëpp sawar na ñëpp tabe wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bu ñu seetloo danañ gis ne li ëpp ci waa Touba lu baree bari ci ñoom dañuy génn di dem ci biir réew mi wala bitim réew bari nañ fa lool. maa ngi jaare foofu sax di nuyu ci jataay bi suñu mbokk yi nga xam ne ñoo féete Italie sëñ Abdou Khadre sañ Sadi sëñ Ahmad Diagne ñëwoon na fi léegi ak sëñ Xarim Badiane mi nga xam ne moo représenté Touba ca kanam ca Paris bërëbu liggéeyukaay yooyu dafa bokk ci li Touba ca kanam bàyyi xel. ndax ndaw lu toll ci war a liggéey te amut liggéey jafe-jafe gënu ko rëy cim réew kon soxna yi li ma doon wax léegi ne Touba ca kanam mën naa saafara seen jaaxle gu metti googu jëm ci njaboot yi nga xam ne léeg-léeg nga gis nit koo xam ne soxna soo xam ne li ëpp ci li muy ñaan lo di ko lijjanti mooy nu may def ba njaboot gi amul liggéey am wér ñi tukki ma a del si ñëpp nekk ci jàmm te loolu wenn ñaar téeméer wi ngay yëkkati di ko dugal ci Touba ca kanam par boo sellalee sa yéene lépp loo daan wuti ci di ñaan lu ji wala ngay weex lu ji boo ko ci yéene man nga mën na caa faju te loolu waxi Serigne Touba la ku dellu ci Masaalikul Jinaan da ko ci fekk muy wax yoolub sarax njariñ li mu am te def ci Touba ca kanam moom dajale na mbooleem njariñ yi nga xam ne moo nekk ci ab sarax kon képp koo xam ne yaa ngi yëkkati saw ñaar téeméer di ko def ci Touba kanam te yàlla tax ak jëmbi sëriñ bi loo daan wuti moo xam looy jañ la mbaadam ko euh, loo ragal wala njariñ loo bëgg a ñoddi la mën nga ko caa amee loolu mooy njariñal baatin li buñ demee ci saayir si xam nga ne Touba li ëpp ci li fiy dugg moo xam lu ñuy lekk la moo xam lu ñuy sol la wala lu ñuy naan liggéeyewuñ ko Touba bu dee lu ñuy bay bayewuñ ko Touba te pourtant li wër tubaa suuf su baree bare ngi fi li wër tubaa Touba ndox mu bare ngi fi ñëpp ñu ngi koy seede ne taw nawet bi li fi génn ci ndox kenn xamu nu toll te ndox mi day yàqu wala boog day seey ci suuf si te ay jumtuwaay ak xarala gu ko mën a récupérer yóbbu ko ci àll bi ñu ciy bàyyi li waa dëkk bi dunde yomb na te mën na nekk mi ngi aju ci ñuy joxe weer ñaar rek bu ñu xoolaatee tamit lu jëm ci yeneen jumtuwaay yi ñu jëfandikoo moo xam tabax la moo xam lu mu mën a doon li ci ëpp dañ koy importer importation bi mën naa nekk ci biir réew mi mën naa nekk ci bitim réew waaye daal luy jógee feneen la di ñëw Touba te li lu baree bari ci li ñuy liggéey moo xam bitim réew la wala ci biir dëkk bi ndawi Touba dem foofa di ko fa liggéey te buñ sañoon ci dëkk bi liggéeyee ko fi loolu yëpp weer ñaar téeméer man na ko buñ takkatoo di joxe weer 1000 francs ñu bëgg mën nañ ko am. ay ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen ñaan a jàmm di ko ñaanal suñu bopp di soññi sama moroomi jigéen yëpp ci liggéey seen Touba bi ñu gën ko jëmmal te xam ni lii lancement la rek te li ci des moo ëpp te moo gën a metti mbooloom na ni def ba dajale ko man ak sëñ Mbacke Niang mi ak Fatou jeng ñoo jël suñu suñu suñu euh, fu nekk ñu dem fa bu ñu dem boo leen mbootaay buñ dem mi soxna Ndak Sène soxna Marème Sy soxna Kumba Ngom képp kuñ ci dem moom da koy yàkkamti ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi. maa leen maa ngi leen maa ngi leen di ñaanal nag ñu sax ci te àndadoo te nekk benn te liggéey Serigne tubaab bi ñu summ suñu borom defal ñu ci tawféex defal ñu ci jàmm defal ñu ci euh, lu kawe suñu yort. ba nga xamante ni dañuy dem ba naa yoonu daara ñoo verse ay tant de millions ci mois bi wala si année bi yëpp sëñ Mbacke nag mii nag dama koy faaw ma tudd ko parce que su ne su ma mbootaay amee woo ma téléphone moom sax moo may soññu ñi ma sey na bu génnal nga ñëw ñu dem bu nekkee muy liggéey électricien la plombier en même temps bu ko fekkee ci liggéeyam day dagg liggéeyam ñëw ànd ak man ma ci crédit ma ci essence taal otoom fu nekk ñu dem fa moom ak ndaak seena ñoom Kumba Ngom ñoom ñi ñëpp képp koo ci woo day la mi def ñoo fekk si la comme ñoom ñim ñoo ma gën a bëgg liggéey bi ñu ngi wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jaaraama am serafa waaw ñun waa yoon daaruñ kontaan nañ fii gën nekk xale lii du fi juddu tey ba fi gën a nekk mag ñëpp kontaan ndax liñ koy sant nag dañ koy sant buñ koy sante sëñ ginnaaw ñu sante yàlla sant ko yonante bi dañ koy sant sëñ Mbàkke mii ak soxna Seyna bu mii ndax ñun kenn ku ne daa nekkoon sa ruq rek yënguwoo ci dara sëñ Mbacke mii yéen ngi ñu ci koñ bi bëgg a liggéey sëñ Touba amuñu bunt moom moo ñu génnee kon lu bu ñu sant rek moom la ñu njëkk sant doo ci teg kon ciy teg moo soxna Seyna bu mii ñu ngi koy sant bu wér ndax kañ liggéey sëñ Touba ku la ko wax kooku ci lu baax la la xiir waaw mën nañoo xiir ci leen ko wax mi ngi lay xiir ci lu baax ñu ngi koy ñaanal fan gudd ànd xéwalam lii mu sumb yàlla na ko ci yàlla may la koy njottoram yàlla na dund may toog ay milliards waxuma la million milliards ñu naan yoon daar la jóge ci barke Serigne Touba. yaakaar naa lii ñu woote ñu wuy si ñu tamit neex na lool sant nañ képp ku fi teew muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw sëñ Abibu Mbàkke mu sëñ Fallu ñu ngi koy santaat bu baax a baax dem nañ fa ne ko dañoo bëgg nga teew ñu demaat fa mu wane ñu danaa teew teewal ñu wax dëgg yàlla loolu set na suñ xol ñun tamit gën nañoo yokk ak ngóora ñu gën a yokk ngóora bu baax a baax a baax a baax ci liñ nekk ñu ngi sant soxna Seynabou Sène soxna Fat Dieng ak euh, soxna Juufa Jaam ndax ñun ñeent ñu yàlla dogal na ñoo toogoon waxtaan si ba ba mu toll fii kon war nañoo santante kenn ku ne santaat sa morom xam ne kenn ku ne dimbale nga sa bopp dimbale nga sa morom ñi fi ñi nga xam ne dañoo demaat si ñoom fekk leen na kenn koo xam ne dem nañ si yow mënuñu mën ànduma ak yéen liggéey bi gisuma kenn ku ne dalee si soññaat di di di la si la wane la maa maa la ko gën a bëgg maa la ko gën a fonk kon loolu dal na xel te yaakaaru na liggéey bi nag des na ñu bàyyi si xel ñun ñëpp liggéey bi des na te dañoo war a àgg fi suñu morom àgg comme fi ñu tuddee soxna Mbaye Ndioum di fa tudd soxna Bintu Mbacke ñu fay tudd soxna Seyna bu seen yoon Daaru Rahman waa yoon Daaru Rahman baaru Serigne Fallou soppee Serigne Saliou yéen ñëpp ngeen bàyyi xel noonu lañ ko tuddee yoon Daaru Rahman baaru Serigne Fallou soppee Serigne Saliou kon nag waruñoo des ginnaaw waruñoo des ginnaaw ñaar ñi ñu àndal desuñ ginnaaw ci benn côté kon waruñoo des ginnaaw kon nag nañ gën a liggéeyaat te gën a jàppuwaat bu a baax a baax